xaaj bu njëkk bi ci ñeenti xaaj yi yeesu jàngale na ak sañsañ sañ nettali bi mu ngi aju ci njàngalem yéesu yeesu jàngal na nit ñi ci mbirum nguuru yàlla jàngal na leen ci mbirum tuub ngëm ak jaamu yàlla benn bés am mbooloo ngi toppoon yeesu yeesu yéeg ci kawaw aw tund mu toog ci suuf di jàngal mbooloo ma mu ne leen ñu topp fukki ndigali yàlla yi te jàngale ko mu ne leen du seeni jëf rekk mu am solo waaye seeni xalaat itam yéesu nee na dégg ngeen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 yéesu ne leen itam jaarleen ci bunt bu xat bi ndaxte bunt bi ak yoon wi jëm sànku yaatu nañu te ñi ciy jaar bare waaye bunt dund gu wóor xat na te yoon wi jëm kaw sew na te ñi ko gis barewul beneen yoon ab farisen dafa laaj yeesu ne ko ban ci ndigal yi moo gën a màgg yéesu tontu ko ne na bëgg yàlla sa boroom ak sa xol bépp ak sa bakkan bépp ak sa xel mépp loolu moo di li jëkk te ëpp ci li yàlla santaane te ñaareel bi noona la mel nanga bëgg sa moroom ni nga bëggee sa bopp ci ëpp yeesu ci ay léeb lay jàngale léebu yéesu li muy firi mu ngi jëm ci yàlla ak ci yoonu yàlla ñi bëggul woon dégg daaw ñu dégg léeb yi waaye ñi bëggoon a dégg daan nañu xam li ñuy tekki bu daawda waxoon na lii ci mbirum set bi yàlla dige dinaa jollil ay léeb di jukki ci démb léegi ma leen benn ndax yeesu dafa ñëw ngir teggi fukki ndigal yi déedéet wax na nu topp leen ñaar lan la nu war a def te bañ a jaaxle war nañu wut yàlla wut njubteem noonu yàlla dina faj sunuy soxla ñett lan la yéesu wax ci bunt bi yóbbu nit ci asamaan te dund gu jeex ga yeesu nee waaye buntu dund gu wóor xat na te yoon wi jëm kaw sew na te ñi ko gis barewul ñeent yàlla ñaata bunt la wax ne ñoo dugg àjjana benn bunt rekk juróom ban ndigal la yéesu wax ne moo gën a màgg ci ndigal yi te ban moo ci topp yéesu nee na nanga nga bëgg yàlla sa boroom ak sa xol bépp ak sa bakkan bépp ak sa xel mépp loolu moo di li jëkk te ëpp ci li yàlla santaane te ñaareel bi noona la mel na bëgg sa moroom ni nga bëggee sa bopp juróom ci seen xalaat ndax bu ñu toppee ñaari ndigal yi topp nañu fukki ndigal yépp ak lu tax waaw ndaxte bu ñu bëggee yàlla ak sunu xol bépp ak sunu bakkan bépp ak sunu xel mépp topp nañu ñeenti ndigal yi jëkk ci sunu diggante ak yàlla bu ñu bëggee sunu moroom ni ñu bëggee sunu bopp topp nañu juróom benn ndigal yi ci tegu ci sunu diggante ak nit ñi ñaari ndigal yooyu tënk nañu fukk ndigal yi juróom lu tax yéesu doon lépp yeesu doon na lépp ngir ñi bëgg a dégg dégg te ñi bëggul a dégg bañ a dégg